coach soose di coach su écurie Fass Ndakaaru ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu làmb. Modou Lo ak ki nga xamante ne bii mooy booy Niang di combat ba nga xamante ne bii le premier janvier la war a am incha allah sa euh, coach lay nuyu. Euh, Mbaye Babacar maa ngi lay ziar di la bëggee bu di la jox sa yeewaay di ziar bi di ziar waa Fass yëpp di ziar bokk internet yëpp tamit ak monde lamb yëpp maa ngi leen di ziar di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay ñun ñëpp. ni koy sekk ak yow saa su ne bu ñu jëmee ci combat bu mag nga décortiquer ñu combat bi ku ci nekk nga wax ñu lan la am ci combat bi diggante amaat diggante Modou loo ak Boy Niang. waaw Modou Lo Boy Niang bu doy waar combat bu combat bu doy combat moo a doy waar am yëpp ñaar na mbër yoo xamante ne ku nekk danga am calcul ku nekk maanaam ku nekk am nga loo xam ne mën nga ku nekk am na loo xam ne mun daan daan moromam ñoom ñaar ñëpp moo tax combat bu doy waar quoi. combat bi ku fi ku ku nit ñu bëri mun na juum si seen kàddu maanaam bu ñu joxee favori mën nañ juum mais lamb la joo xamante ne lamb ju doy waar la. nga ne ku ci nekk da nga am lu mën a daan sa morom Modou am na lu mën a mën a daan Boy Niang Boy Niang am na lu mën a daan euh, Modou boo ñu ko doon yaatal. waaw su ma nee ku nekk am loo loo mun daanee sa morom parce que ñoom ñaa mbër yëpp ay mbër la ñoo xam ne dañuy bëre am nañ mun nañu bëre mun ñu xeex boo ñaa li ne si moom si bëre sax lu bëri da koo Boy Niang ñu bëri ñu ngi wax Boy Niang Boy ni ma xamee Boy Niang man ni ma xamee noonu laa xamee Modou Lo Modou Lo ndanaanu bëri loolu kenn du ko naan naan naatable Modou Lo ndanaanam si làmb kenn du ko kenn kenn du si werante mais booy bi dafa nëbb mbëri lu bëri si mën a bëreem. moom Boy Niang waaw. kon a wax ne a bëreem a bëreem Boy Niang lépp lay bëri si làmb moom moom mbër la boo xam ne xam nga mbër boo xam ne day bëri lépp te bari mu ñëw wane loo xam ne wanawul wanawul loolu si làmb ñu bëri ñuy gis ne day réservé wala affaire yooyu fekk lu mu ëmb si sax ëpp na lu muy wane nii moo dama la combat bu mu daan sa borom la war a moytu ci Boy loo moytu tey Modou boo xam ne amul mënul moytu mbër si làmb parce que Modou bëri ko caaxal quoi mais combat gis mu def lu mu daawul def maanaam mooy mu adversaire gëdd ko mu reculer waaw mu adversaire bi nag noo war a bëri moom moo tax moom Modou professionnel la ku ne am na nu mu war a bëre ak yow mbër bu nekk Modou xoolal combat am yëpp adversaire bu ne ak nu mu bëre moo tax ma ne la ah, dafa am si biir ak sànq ku ne na loo mën a daanee sa morom mu maanaam ne ba la ëmbal ne Modou am na am na loo xam ne mën a daan ku boo yoo am na loo xam ne tam mën na si daan Modou Lo jëlee bu rëy moom tamit am na ko. Modou nu mu war a entamer combat bi. bon nu ma mais c'est que xam ah, nga du mbër bu ñuy digal demal def li demal moom mu laa la sànq dama ne Modou bëri na ak ñëpp am na expérience Lamu Modou tey doo ko digal dara xam na lépp lu moo def si xam ñuy wax mu ne moytu Modou pièce ko si biir bëre. loolu moo loolu moo loolu la ñu waral. waaw ñu gis Modou mën na combat mën na en général combat bu gaawee dina ko arrangé ci benn côté mais combat bu yeex moo ko gën a arrangé te gis mu ne mbër mbër muy xaar la. boo ñaa mën na ñaari bi kon Modou mën na ñaari boo ñaa mën na xaar mën na combat bu gaaw mën na xaar boo ñaa xoolal combat bi ñu bëri combat bi day jël temps xool lu muy def dafa am lecture de bëre moom. lecture de bëre lecture de bëre lecture de combat ak lecture de bëre bokkul xam nga ngay bëre sa biir bëre mu lay xool lu ngay bëre mu bëre si kaw loolu daan la si. bokkul ak lecture de lamb ba léegi lecture de bëre laa la da ko am moom. boo ñëwee dafa am lecture de bëre sa biir action yow mën la si daan si kaw jaar la fa daan la si kaw loolu mbër moo loolu mbër mën a bëre rek mooy mooy mooy mooy mooy toll foofu. loolu lañ gisee seen face à face bu mujj ku ne waxante nañ waxante nañ mais Modou dafa naqaree calculer si ay si face à Modou Modou Modou lu muy wax face à face ak lu muy indi si lamb ji bokkul façade mu lay woon si face à face ak façade lamb bokkul. ok ku naqaree calculer la. bu gaawee avantage bi la. bon bu gaawee mën naa ne avantage mu booy booy ñaaree doon hmm. waaw. boo ñaa moo am moo moo am avantage bu combat bi. moom si combat bi laa wax si bu gaawee boo déggee gaaw na rek boo ñaa avantage am la. Hmm. lu tax nga wax loolu. dama xam ne pare na pour loolu yëpp xam naa ne pare na quoi parce que maa ngi koy gis si lu bari. <laughs> bu ñu xeexee non dëgg ma non moo jàng non xeex moom xam koo xam ne bu muy nekk élève la jàng lay jàng xeex kooku mënoo ko làmb la nag quoi làmb mun nga waaw mun nga ñëw fi yaakaar mu demee ne moom làmb la chaque jour moo tax lu ne mun na si am surprise mun na am mais kii dafa jàng xeex a base boo ñaa boobu ñëwagul si làmb boobu mu ngi jàng muy jàng xeex kon kooku xeexkat la quoi déjà ba pare waaw waaw. waaw. est-ce que parce que ñaar la ñoo xamante ne ku ne da ngay réserver lu bëree bëri si ñaari xale yooyu moo Lo boo xoolee lu ëpp ci combat lu bëri day réserver day xaar boo ñaar tamit mbër mi xaar la est-ce que combat mën na si xaar jël wala bët gàng jël jël bu rëy mooy jël bu rëy mooy am dañuy lu ñu xaarante xaarante dañuy bëri par force dégguma lu ñu xaarante xaarante laa wax dinañu bëri par force xaarante bi xaarante bi jaaru jënante maayen lay doon rek si calcul parce parce que naa nga xam ne xaaral bi noonu day day day ko dégg de déedéet foofu de déedéet. mais lu tax sànq nga ne jël bu rëy mooy am. non dama xam ne ñoom ñaa ku si tànn sama morom jël bi day rëy ñaara bërëkat la moo tax. mais man bu bu bu riiree wuti ji ko comme boo ñaanee seen mbëri yi maamu yëpp da lay humilier da lay dóor taf taf lu dóor suuf. est ce que moo lu mu bëreeg Ama lay bëreeg boo xam dèjà Modou avant muy bëre Ama ak Boy am lu ñu ko laaj moom mu wax am na lu mu xam na booy bi comme baabu ni mu koy bëree du mu bëree Ama lay bëree Boy Niang parce que Boy Niang ak si xeex si bëre bokkuñu. laaj nañ ko mën a comb ak Ama moo gën a yomb bëre ak Boy Niang. Ah, parce que Ama day ñëw xam ne Ama day daal si kawam xam na ne moom xam na ne Ama dèjà Ama jël na ko mais Ama fukk fukk lay bëre moom. Ama fukk bi si fukk Ama la moom si fukk Ama la la liggéey ba daan Ama boo xoolee mais Ama bu ko Ama fekkoon dafa arrêté na boppam téye am ñu ko am nuñu am am nuñ ko ñaax am nuñ ko wax am nuñ ko indee Modou mun a mun a am problème si combat boobu de parce que moo ëpp laf moo gën a diis bu dee si poids la waxu doole leneen la doole poids bokkul Ama moo ëpp laf moo gën a diis. ama am na lu mu doon bëree rek Modou mënoon na am problème mais Modou loolu la xam Modou loolu la xam moo tax mu ne bërëg Ama gën a yomb bërëg Boy Niang kon moom xam na Boy Niang bërëg moom bërëg Boy Niang yombul xam na ko xam na ne bërëkat la xeekat la te da am mooy lu ma la sànq dafa am lecture de bëree Boy Niang dafa dangereux si bëree Modou duggoon Pikine fas yéenee duggaat Pikine loolu lu muy def ci mbër. ah Modou c'est pas la première bi mooy ñaar dugg na Pikine duggaat Pikine duggaat Pikine ngay wax. ñaari combat yu teglantoo waaw ah, mais loolu ëpp coow la loolu moom làmb la rek ay pikin yooyu waxu pikin waxu làmb la rek waaw waxu làmb la rek loolu waaye ñooy gars yi neexal làmb rek boo ñu dugg ci détail yooyu mais qualité mbër yi ñuy bëral bokkuñu bokkuñu qualité mbër yi boo xoolee si mbër bi sama combat boo koy bëre day dépendre si adversaire bi ngay bëral dépendre wul si quartier bi si adversaire bi lay dépendre parce que quartier bi bëréwul adversaire bi mooy bëre ah non nest pas te adversaire bu ne xam nga lu muy luy forme ak luy faible am Modou respecté na Boy Niang trop nu mu respecté Boy Niang mosu ko respecté mbër lu leer la mamaa maa la ko wax si combat Modou mi mbër yëpp laa la wax nu mu respecté Boy Niang respecté ko benn mbër si kaddu ak si lépp si boo xoolee sax si sereem ak yëpp xam na ne daanaan la am. mais Babacar tey ku ne soose ñu ne soose bu faas tey ñu xool benn mbëru faas ku ci mel ne Gris Bordeaux ay nattu daal koy daal ci ay coow yoo xamante ne tey ñu ngi naan accusation la coow li bari na trop internet bi fu ne. ci ay problème boo xamante ne ñu bëri bëri nag def benn soutien génn xeexal ki nga xamante mooy seen lutteur mooy Gris Bordeaux parce que doomu réew mi la te doomu Sénégal la benn mbir bu ko dalee ku ne génn def ci sotti tey sooce soocé tey ban soutien lay apporter ki nga xamante mooy Gris Bordeaux ak lan wax ci loolu tamit bon loolu sànq rek maa ngi doon waxtaan ak benn grand dama ko mbir mi daal ni ko ñëpp déggee man loolu laa ko déggee parce que ba léegi tooguma ak kenn si dirigeant écurie Fass déggee noonu laa si yem barke sëñ Tuubaa Mbàkke bon xaw ma am na xaw ma amul aduna nag xëy nga dégg wax boo xam ne dëgg lay doon parfois du doon dëgg mais man li ma mën a wax rek mooy ndey mbili gi mii gii di si boppam moom moo war a yeewu ñëpp moo war a génn leeral liñ koy tuumaal lan la parce que neexul kenn tey koo jege giri wala nga dëkk fa nga dëkk naa di dégg loolu si kaw giri parce que lu muy lu muy représenté moom am am personne si làmb ak si dëkkuwaay bu ñu tegee baari si kawam ñi si wax ñëpp xëy na tey dañ siy wax ni am lu leen métti wala xam nga bëgguñu du gàkkal deru gi wala affaire demee noonu ñun ñëpp bëgguñu ko kat du lu gàkkal deram mais xam nga nekk tey doomu aadama tey man man bokk man sama gis-gis lépp lu may wax tey dama bëgg mu nekk lu wér loo xamante ne du ma ko layoo ëllëg mun moo toog fii di wax loo xam ne même bu ñu bokkoon ndey ak baay sax mu demee neneen tam da nga ko leeral ma yow ma mun mun du ma si wax loo xamante tam tam tam wóoru ma tuuma la teg nañ ko si kawam am nag amul loolu moom rek moo ko mën a leeral kilifa la dafa njaboot yor doom yor famille tuumay mel ne tuumay garaaw la neexul kenn nag ku mu jege wala ku mu dëkkal mais pour mu ñu bañ am benn détail bu subaa doo daje kenn am looy expliqué moom mooy gën def sorti leeral ñëpp am jàmm waaw. waaw moo wax loolu mais pourquoi ñoom ñu xam loolu pare Gris dem foofu. mais loolu su loolu moom la wax rek loolu lépp mun na nekk ay problème yu ñu defar la wala yu ñu fabriqué la mais boo Bordeaux moo ñu war a dimbali ñun en tant que ay nitam. yu ko jegee ndax affaire affaire dafa ñu metti moom laa la xam nga dara bu la métti tamit te lu leer bu si sori moom moo ñu dimbali te yàlla tax mu gën a leeral wax nit ñi lu leer ñu xam lan la parce que tey jii tam tam rakam wax na quoi te lu mu mun na nekk dëgg. mais ñee wax nañ tamit quoi mooy lu nga wax rek ku nekk da nga wax. moom moom moom moom moom muñ tuumaal moom moom moo war a yeewu ñëpp mu yeewu la yow yeewuñu ñun ñëpp. moom moo war a gën soog def lu wax wax lu leer wax qu'est-ce qui se passe. Hmm. ci euh, ci euh, coowal Gris Bordeaux rek ba léegi laa desandi ak moom am nañ tamit jamono ji tamit yeneen coow yu ndaw yi ñu dëkk tamit biir Fass ñu bari ñu ngi wax ci côté euh, ki nga xamante ne mooy Diène Diouf Kairé ak côté Ada Fass fas yéene ànd ak xale boobu ànd ak moom si bis bi la 17 diggante moom ak Zarko parce que bari ñaan Diène Kairé Ada Fass neexooñ est-ce que loolu c'est vrai que dëgg wala waaw heure bu ñu waxtaanee rek xam-xam feeñ. waaw yow moom sama waay nga yow moom xama rek yow moom yi daal ñaan yàlla yàlla defal lañ jàmm defal la sutur defal la xéewal fépp fa nga bëgg a yóbbu sa chute bi yàlla yegg la ba nga am télé joo xam ne ñëpp ñu si coow di gërëm waa Fass ñëpp di gërëm tamit sama sponsor waa Bawol promotion PDG bi Momar Talla Ndour di ko ñaanal yàlla moom jabaram Maram Ndour di la ñaan yàlla yàlla may leen gudd fan ak ñu fekkee njëriñu njaboot gi yëpp waaw ñeen loolu laa la ñaan di ñaanal waa Fass combat yi ñu yëpp booy Fass yi am combat yëpp waa Fass yëpp am combat ak waa Medina yi am combat yàlla na yàlla may nam seen combat yëpp sedd guy seen seen waaw jaajëf grand jaajëf coach coach Socé lañ sekkaloon waxtaan jaajëfal nañ leen incha allah ba beneen yoon